maa ngi leen nuyu waat ziaraat euh, tey gis nga euh, actualité bi depuis avant màggal gi ba tey on ne parle que de ça daanaka li ko gën a attisé nag mooy ne que dafay yàgg te ba tey dara leeragul muy euh, l'affaire du double meurtre de Technopole cet artiste danseur là Aziz Dabala ak un de ses amis yi nga xam ne moom la doon dundandool ci même appartement di Wally ñu fàtt leen ci anam gu jéggi dayoo anam gu ñaaw a ñaaw mais malheureusement ba tey ji ñuy wax ak yow euh, xamaguñu mbir mbir mi fan la fan la mujjee en tout cas il y a eu beaucoup d'interpellations mm-hmm. selon notre correspondant Théodore Semedo ñu indi léegi léegi le dernier élément waaw loolu ku ko dégg war ngaa tiit xam mm-hmm. lu tax ngay tiit parce da ngay ne ñun Sénégal nekkatuñu en sécurité tout à fait que léegi dañoo dem ba benn jamono boo xam ne dee dañ ko banaliser mm-hmm. bu doon dañuy rey rek mais léegi reyatuñu dañuy rendi dañu jàpp ni def ko comme xar <laughs> wala ñu def ko comme gëléem wala ñu def ko comme nag <laughs> jàpp rendi daggate yooyu c'est extrêmement bu njëkk ba boo boo mosee gis loolu ñun dañuy wax ne ñu fi dëkkul la <laughs> ñooñu lañ ko doon jiiñ mais léegi nag Sénégalais yi ci seen bopp ñoom ñooy def lool donc sa veut dire nous avoir peur bu loolu weesoo aussi wax dëgg yàlla ñu ngi méttitlu di dal Aziz Dabala. Mhm. ak xale boobu ñuy wax Waly. Mhm. léegi li ci gën a doy waar mooy waa ji dafa assumé. c'est grave moom nee na moo ko def lu tax nga rey ko mu ne dama ko doon laaj xaalis booy laaj nit xaalis joxu la loolu jar na nga rey ko. la jaru loolu jaru ko. Ah? léegi moom rey na waa xaalis ba jotu ca te ci kaso bi lay faatoo. Mm. donc ça veut dire que war nañu xoolal léegi mais malheureusement dañoo nekk société boo xam dañoo dem ba banaliser la mort même dans notre langage le langage est violent da ngay gis ku nay miti amul ragal mhm. bul tiit da ngay dem sax même booy sëyi mhm. day dégg ñu ay da nañ dem sotti ko acide bu ji mooy wax loolu ah <laughs> donc ça veut dire que même dañuy xëppante asib. waaw nañu xëppante asib yow booy sëy loolu lu fa jar ngay wax damay xëppante asib. donc ça dire que même la langage est devenu violent. Mm-hmm. léegi nag loolu bu ñu day répercuter sur la société malheureusement yu mel nii rek lay jur. léegi nag force de l'ordre yi. Mm-hmm. ils sont tellement forts bu dee am na crime. Mm-hmm. deux jours après. ñu jàpp ki ki ñu ki ki ki def loolu. Mm-hmm. mais man j'aurais aimé en ñu def dans la prévention. Mm-hmm. éviter gars yi def loolu. bien sûr loolu mooy force bi. Mm-hmm. mais bu dee chaque fois da man leeroon na ma dinañ jàpp ay nit loolu leeroon na ma. mais fexe ba yooyu du am. Mhm. man moomu gënoon la prévention quoi l' bi nag c' est c' waxee rek parce que tudd nañ ci sax ay ses très proches. généralement xam ne nii jege nañu ko nii donc yow doo doo maanaam euh, ki nga xam ne yàgg ngeen di ànd peut être doo xalaat ne. mais ndax appartement boo xam ne kenn daajiwu ko kenn cambriolé ko kon ki la ki la ki la rey da nga ko ubbil. kon boo gisee ñoom ñëpp seen biir la. Mhm, mhm. mais police war na mën a am aussi bu xoolee. yenn va et vient yi ci benn kër benn appartement. waaw ñi ngi dem ñi ngi dëkk. surtout n'importe que toute la nuit dañuy fonctionner. surtout mais ku police war na xam leen moo xew foofu. surtout donc yooyu foofu laay waxee quoi. Mm-hmm. Mm-hmm. la police doit être dans l'anticipation. Mm-hmm. mais est-ce loolu tamit du rôle ki nga xam ne moom moom moom immeuble bi. xam nga des fois aussi nit yi dañuy am seen immeuble. xam nga dañ koy loué. ci ay quatre étages bu jox nañ ko benn agence. agence bi li ko ci intéressé moom day fay weer. ñoom loolu leen di boo leen waxee sax fii am na benn problème réparation duñ la faale. ñoom li leen intéressé le cinq wala le dix ñu ñëw jël liñ ciy am. yooyu mooy ni kii nga xam du xam da mais loolu sécurité. pour sécurité bi sa appartient à l'État. Mhm. c'est le garant de notre sécurité donc man. je crois que est-ce que aujourd'hui doyen c'est pas l'occasion bu duñu xuus directement ci enquête parce que on a Pape Sané quand même. qui nous suit cette actualité de très près. et que tey moo nekk sujet dinañ ci détaillé mais man. en tout cas c'est ci ci côté yi maanaam tey jii est-ce que euh, tey c'est pas euh, le rôle des euh, propriétaires maisons yi. ñuy gën a misé wu ci caméra de surveillance yi gën a misé wu ci li nga xam ne moom moo di euh, gardiennage yi. parce que dañuy gis immeuble lëmb boo xam ne nii am na presque huit appartements. Ah. mais amul gardiennage amul li nga xam ne moom moo di caméra de caméra de surveillance. Mm. te pourtant weer bu nekk ñi nga xam ne ñoom ñoo fa logé fay la. waaw xaalis bu takkoo takku. nga jël ko furaax di ko lekk ak sa njaboot dañ ci war a aussi dafa nekk li nga wax ni li nga wax ni dafa am solo. biñ naan femme biñ hmm? naan dañu rey dañu rey dañu rey dañu rey nit ki am na ku nekk ci appartement ku ñu jël interview mu ne moom dégg na ay yuuxu. mais attends bu doon vigile moo dégg ay yuuxu bu doon vigile la moo fa nekk peut-être dina dugg di sonné appart par appart di xool yuuxu ah, yi fan la jógee xam nga vigile bi aussi généralement les vigiles sont trop mal payés léegi mhm. ku gardien immeuble quatre quatre quatre étages wala cinq ba sept ñu lay fay ay trente mille ay cinquante mille léegi ñooñ di fa dëkk nekk ci yenn kii yu activités yu louche yi mhm. ñoo dañ lay corrompre mhm. ñoon dañ bu ñëwee sànni la benn mille franc bu ñu rombee sànni la benn deux mille ak lu fa mënti xaw doo ko wax donc foofu foofu mooy problème en tout cas mhm. la police doit veiller davantage xam naa Pape Sané. mais bien sûr dina ci ñëwaat. moo tax ah. Pape Sané xam naa comme ni ko euh, doyen waxee dina ci ñëwaat. mais dafa am loo xamante ne lu bees loo xamante ne li ma tiital ci dossier boobu noonu. Mhm. mooy maanaam euh, ñi nga xamante ne son sont euh, par rapport ak à cette situation là. Mhm. mooy ñi nga xamante ne dañuy jël seen image taf ko. Mhm. te ñoom ils n'ont rien à avec les ñu naan waa les meurtriers sont jël seen image taf ko. ñu ngi gis ay sorties ñuy wax ni carrément ko ñoom du ñoom seen image lañ jël taf ko ñoom laalew ñu benn yoon ci lii mhm. ci loo euh, mhm. parce mhm. seen seen lox seen sécurité instant yi dafa nekk en danger c'est une bonne belle koy garder si kanam ak jàmm Pape Sane dina ci répondre parce que def na benn interpellation bu am solo boo xam ne dina ko ko mën a xaar pour déglu ko parce que seule l'autorité moo mën a taxaw wax li nga xam ne moom la enquête bi sës ndax fu ne nii réseaux sociaux yi tiktokers yi ñu wax influenceurs yi wax ku war a wax mu ngi wax ku warta wax mu ngi wax famille ba mu ngi wax famille yi ñu ngi wax donc il y trop d'interpellation donc xamuñu li gën moom mooy peut-être mm-hmm. tey jii bu procureur génnoon def benn point de presse mm-hmm. yaatal ñëpp di ne tekk noppi bàyyi enquête bi si tamit ay dogal dogal yooyu bokk na ci peut ñi nga xam ne ñooy def yooyu nañu ko arrêté wala daan tegu seen kaw loolu aussi c'est bien à préciser Pape Sané bonjour mënoo ñàkk ci début waxtaan bi mais bon fin bi lañ la ba beraloon loxo mais il faut nga participer ñu ngi lay nuyu d'abord di la fay soxna si. sama goro comment tu vas. mais le meilleur goro du siècle. non man bu ñu ne ma yaa ngi fi dama dama tiit man leen abo. Ah man <laughs> lii rek mooy bëgg Pape Sané quoi nar moo ñëw lëndi. dama la bëgg. dama la bëgg. rek mu fexe ba ñëw lëndi quoi. dañ ma conducteur bi xoolal Pierre dama bindal conducteur Pape Sané rek ma ne dara damay. nga ne ko doon damay <laughs> ñëw sant yàlla waaye yow it <laughs> ngay la ngay la meilleur goro. ba pare wuyu ma exclusivité yaa ko yor. ah bon xale yi wax yëpp xaaruma la yow laay xaar. yii mais gars yi dañuy tëjaate de. tey ku bëgg a dégg di nga dégg. waaw mais gars yi dañuy tëjaate. gars yi dañuy commencé tëjaate comme ancien nguur gi de. Ah. mais bon. <laughs> mais yow lanceur d'alerte la. ana rupture oui mais ay mélanie nee ko les lanceurs d'alerte. mais légiféré guñu. légiféré guñ ko de. légiféré guñ ko président daa wax rek dafa wax rek dafa wax président daa wax rek mais légiféré guñu de. xaaral wax ko nu Seydina Omar mu piqué cëram. waaw mu légiféré gul on n'a pas encore légiféré. <laughs> kon dara wóoragul fi mu ne. yii dara. kon nañ def ci nànk ci kaay nee buy pouvoir yëpp a ñoom ñëpp a fiir <laughs> ma am mbégte nuyu kii <laughs> euh, Demba Ramata mm. nuyu Mélanie nuyu également dalal suñu gan gi mais amaan mbégte gis la quoi vraiment nga nekk en super forme quoi ok mais ana dawkat bi moom da ci daw la dëkk moom et puis tu sais moi je suis encore sous repos médical il m'oblige à venir te moom muy daw encore. mais yow jàppale ñu rek. ah bon dinaa ci jàpp mais yàlla baax na. yow kenn du yow. jërëjëf sans yow tamit réveil du dem. moom réveil. ça <laughs> réveille là quand même alors euh, ñu ngi tamit am l'immense plaisir de recevoir sur ce plateau également euh, monsieur Seydou Nourou Kane nekk njiital Ascosen FC monsieur Kane kan ngi lay nuyu bu baax a baax di ci réveil bi c'est un plaisir en tout cas. merci beaucoup maa ngi leen di fay. Mhm. voilà di leen nuyu tamit euh, di ñaan yàlla vraiment ñu. Mhm. def euh, un très bon moment ensemble. de réveil. voilà di nuyu sama doyen. <laughs> ak sama tonton Mélanie bonjour. bonjour en tout cas euh, Seydou Nourou euh, si kanam ak jàmm dinañ wax sujet bi nga xam ne moo la fi gën a indi mais en attendant ñun on va essayer de parler actualité boo ci amee actualité bu la intéressé rek mën nga ci euh, apporter également sa contribution boo ko boo ko bëggee alors doyen l'on poursuit quand même pour waxtaanee beneen actualité bu ñu magal euh, de de Touba gis nañ fa également ay diggé yoo xam ne ne jóge na ci nguurub Sénégal taxawaay bi nga xam ne bëgg nañ ko taxawee waa Touba même bu fekkante ne am na ay rëkk-rëkk un peu ci ak lettre boo xam ne jóge na présidence jëm ci li hmm. euh, euh, ndoxteelu ndoxteelu màggal gi mais tey buñ dee def analyse par rapport ak un président de la république boo xamante ne nii ñëwul pour peut-être def discours pour euh, euh, jéem xëccu électorat wala dara mais un discours boo xam ne peut-être ñu koo xam ne am na envie def. tax loolu nga gis. xam nga Touba. dafa nekk un enjeu de taille. pour le contrôle de destinée nationale. dafa bokk ci politique réew mi. te dafa am lu ñu représenté en terme d'électorat en terme aussi de population démographie en termes aussi de développement deuxième ville la plus peuplée du Sénégal ensuite infrastructure de femmes Touba dañ ci war a bàyyi xel même bu dul sax wut fa électorat mais ku nekk chef de l'État dañ ci war a bàyyi xel parce que dafa am lu ñuy représenter te dañ doon force boo xam ne lu ci bari ñoom ñoo koy defal seen bopp ku am loolu da ngay am un allié sûr léegi nag ci biir loolu président Diomaye moom nee na objectif majeur am la priorité de ses priorités mooy faire en sorte que durant ces cinq ans là que en termes de potabilité que en termes d'inondation yooyu yëpp mu réglé ko donc c'est un engagement très fort et intéressant pour tout tout tous les Sénégalais parce que waa aussi il faut ñu xam ne ce petit hameau là fondé par Cheikh Amadou Bamba en 1888 ak connu un développement fulgurant Touba ni mu développé dafa jéggi dayoo chaque jour que Dieu fait di nga village bu disparaitre au profit de Touba donc dëkk bu mel noonu état waru ko bàyyi noonu daf ko war di xool di saytu di def le développement bi nag moo laaj loolu léegi nag malheureusement les infrastructures n'ont pas suivi par rapport au rythme démographique parce que nit ñi dañuy yokk chaque jour di nga gis chaque jour nit ñaa ngi toxu Touba village yaa ngi disparaître surtout dans le Baol et le Saloum au profit de Touba léegi nag ñooñu dañ soxla ay en termes de santé en terme d' éducation en terme d' en terme d' électricité te 60 ans après l' indépendance dëkk bu mel noonu mënuñu am ndox mu neex c' est un problème mënuñu am yenn infra bien vrai def nañ fa ñaari hôpitaux bu bees temps yële mais ba léegi des na en terme de personnel qualifié donc yooyu yëpp c'est de donc même président Diomaye daal engagement bi ñu jël am na solo te wane na ne pas-pasam ne moom dafa fas yéene taxaw ci ñu defar Touba ba mu doon dëkk boo xam ne wax dëgg yàlla sur le plan religieux ak sur le plan du développement day doon dëkk bu mucc ayib donc simplement waaw la pàcc la boo xam ne ci réewum Sénégal wàllu économie da ciy dox bu baax a baax. rawatina bu ñuy waajal surtout l' économie informelle. Mm-hmm. parce que bu ñu la nee màggal gi rek dina polariser plus de deux cent milliards de francs CFA en terme d' échange ak de rentrée d' argent. Mm-hmm. donc ça veut dire que loolu dafa am solo. léegi nag war nañ léegi nag problème mooy ñun loolu lan nan lañ ci war a gën a mën a bénéficier. Mm-hmm. parce que Touba war na mën a am tourisme religieux. te nit ñi fu nekk la ñuy jóge di dem Touba mais loolu war nañ ko organiser. Mhm. ba nga xam ne muy indi xaalis comme ni Vatican di indi xaalis. Mhm. boo demee le musée. du Lourdes di mhm. indi xaalis boo demee en Turquie la mosquée bleue ainsi de suite yooyu yëpp mais organisation foofu daal wax dëgg yàlla bu ñu ko mënoon def. gën a valoriser aussi. fexe ba Touba am aussi benn zone industrielle. parce que xaalis bi fay génn ak ñi fa am xaalis. ak yooyu yëpp bu ñu ko mënee organiser aussi du yàq dara. Mhm. mais léegi nag wax nga fi sànq par benn lettre. Mhm. lettre boobu ça a la fausse note du Magal. Mhm. parce que ku ñuy wax Cheikhouna Mbacké. moom il se proclame. président du comité d'organisation. léegi nag ba bind benn lettre pour gars yi jàpp pour état bi jàppale ko pour mu jël ay ganam en charge. léegi nag par la suite. sëñ Abdou Khadr Mbacke est sorti. bi mu génnee aussi xamal na ne moom c'est lui le président du comité d'organisation. Mhm. du commité d'organisation du Magal de Touba donc léegi bu ñu doon xool en terme de droit ki xam na li may wax. Mhm. day niru bu dee li sëñ bi wax moo am li mu bind amul day niru usurpation de fonction et de titre. à fait léegi loolu lan moo war a doon jeexital bi mooy plaint mhm. wala ñu woo mais diggante bi yaakaar naa loolu waru mun a am. bu loolu weesoo aussi on peut s'interroger est-ce que bindatul ñeneen encore dans les mêmes conditions. Mm-hmm. on peut s'interroger. Mm-hmm. donc ça veut dire là-bas il problème en tout cas il y a nécessité de mettre de l'ordre dans ce comité. Mm-hmm. donc ça dire que am na lu ñuul ci soow mi bon nañ ko raxas et le linge sale certainement en famille. Mm, mais en tout cas la démarche là. elle n'est pas euh, elle, elle n'est pas et puis rafetul ci ci deru koo xam ne Mbàkke la sant wala yooyu en tout cas ce qui est sûr sëñ Muntaxa Mbàkke waxul ne nañ ko dimbali sëñ Abdou Khadre son porte-parole waxul ne nañ ko dimbali donc bu bu keneen autoproclamé aussi comité nangam bëgg dimbali ko loolu dafay tey xel te wax dëgg yàlla comme que ñoom suñu njiit lañu. Mhm. am na feneen fu leen di xaare daal et puis <laughs> dañ dañ leen di xo eh, eh, eh. dañu bëgg a di roy ci ñoom mais mhm. bëgguñu copier les mauvais exemples quoi hmm? noo gisee la prestation du ministre de l'intérieur Augustin ñëpp ñu ngi doon wax naan amoon. waaw xam nga des de des déclarations yoo xam ne nii jarul woon sax peut-être ñu ko doon attiser naan euh, il est chrétien comment il mais quand même il s'en est sorti les Sénégalais. oui non ceux <laughs> le Sénégal. Mm-hmm. mais bien sûr. parce que Sénégal dafa am relation yoo xam ne entre la chrétienté ak le musulman dafa dafa mos a fu uyuleewu. musuñu am benn problème. mais malheureusement il y a des gens mais qui cherchent à waaw Serigne Fallou Senghor a géré ce pendant ah quarante ans ah te amul benn problème pendant vingt ans plutôt te amul benn problème donc da ngay gis keneen aussi généralement am na d'anciens ministres de l'intérieur qui n'étaient pas musulmans te dañ doon dem màggal dem Touba dem Tivaouane dem Ndiassane dem mais musul am problème donc on ne doit pas chercher à créer des problèmes là où ça ne doit pas exister. donc ñu ko doon wax peut-être am nañu li ñu ko mais kii daal démontrer ne moom c'est un véritable Sénégalais. Mm-hmm. te xam na réew mi xam na sociologie réew mi. Mm-hmm. xam na li ñu war a wax ak nan la koy waxee ak kañ la ko war a vraiment c'est un discours. Mm-hmm. très pertinent à mon avis et puis c'est un discours responsable c'est un discours aussi rassembleur mhm. te reconnaître na aussi la valeur de Touba mhm. la valeur de Cheikh Ahmadou Bamba wane ne que Cheikh Ahmadou Bamba est un exemple à copier mhm. et c'est une grandeur à magnifier et que les mourides doivent s'inspirer au-delà même des mourides de Sénégalais ñu xam ne kii li ñu fi bàyyi c'est un héritage à préserver et cet héritage là mérite am négation détermination quoi. Euh, doyen pour non non pour euh, dans la même lancée que Demba Ramata xam nga ñun malheureusement au Sénégal dafa am benn euh, benn appréciation bi ñu am ci militaires yi. Mhm. que c'est juste des hommes de tenue c'est des hommes de caserne et consorts alors que mais ñun on a la chance on a la chance hein d'avoir des officiers et même des sous-officiers yi nga xam ne da leen di fekk dans les meilleures universités du monde euh, Jean-Baptiste Tine bi barki Demba la doon présenter la doon soutenir mémoire am doctorat doctorat am donc cest à c'est des gens yi nga xam ne au-delà de l'uniforme nii mais c' est des gens comme tois et moi cest à mm-hmm. fi ñuy jànge nañuy jànge mm-hmm. et puis dëkk ci société bi di root ci société bi mm-hmm. xam la nga xam ne euh, maanaam dañuy dugg dañuy dëkk ci li ñuy wax de familles nucléaires maanaam famille bi nga xam ne pàcc bi day nekk chrétien pàcc bi nekk musulman chaque jour ñuy gisante di naanante amante ay xarit am ay xaritu musulman am sax ay soxna wala ay jëkkëru chrétien wala jëkkëru musulman di nekk c'est-à-dire dañuy xam société bi li muy laaj gis nga ñooñu Euh, ñun appréciation bi ñuy am ci ñoom parce que c'est des hommes de tenue moo ñuy nax souvent dañuy foog ne c'est des gens qui sont juste limités ci mbirum armée wala ci mbirum gendarmerie mbirum police alors que tey jii tey tey tey récemment il y a un inspecteur général bi nga xam ne il a il a soutenu un mémoire aux Nations Unies c'est-à-dire mm-hmm. biir Nations Unies il est le troisième officier au monde bu soutenir un mémoire aux Nations Unies mm-hmm. sur les droits de l'homme xam nga yooyu mm-hmm. bu ne la kooku c'est un Sénégalais pour ñun ce n'est rien du tout quoi. Mhm. donc ñun euh, ci presse bi comme ci espace politique bi on a dañu war a gën a jàng qui sont ces militaire qui sont ces gendarmes qui sont ces policiers. et éviter également demander également aux hommes politiques d'éviter justement de fragiliser ces gens la parce que ñooñu mhm. euh, à force de les fragiliser moo leen di exposer ba Pape bu leen xoolee foog na ni tekkewuñu dara lu dul euh, homme de tenue quoi. toujours dans le même le carnal Yacine Thiam il a un imam. Mm-hmm. oui le carnal Yacine Thiam. dafa mës a xeex pour ñu libérer Mamadou Dia. Mm-hmm. Mm-hmm. daf ko mës a def il a toujours fait un plaidoyer. donc ça veut dire que ñun Sénégal yàlla ñu dimbali daal. soo gisee yenn guerre ethnique yeeg guerre. de tribu yi am ci yenn dëkk yi amul fii. Mhm. ça veut dire que le brassage réel. Mhm. du ay caaxaan quoi lu ñuy dund la lu ñuy vivre. Mhm. donc bu ñu bu ko ñëpp jàppee noonu rek dina dem te ministre benn benn posture la. Mhm. à un certain moment. Mhm. Mhm. donc ça veut dire te booy wax aussi tu as des conseils. tout ça que di ngay wax di ko xam bu baax a peut-être euh, pour boucler partie màggal googu rek mënul ñàkk aussi ñu wax Mélanie ci wàllu folklore bi parce que y a un dignitaire Cheikh Sidi euh, euh, Mokhtar Ka qui a quand même dénoncé le fait que màggal gi dafay àndaale trop de xumbeel. jigéen ñee góor ñi jaxasoo. xam nga jigéen ñi dañuy sol du n'importe quoi man mënuma comprendre dem t yóbbu cheveux naturel loolu. fay loo koy dee. Mhm. am nga def sa pose ongle. Mhm. def say cils. Mhm. mais attends loolu même bu fekkente ne sax nee nañu def nañu benn barrage strict ci toog ci euh, jumaa ja donc fa yóbbu mais quand ci dal yi li fay am. xam nga ñoom jigéen ñi généralement ce sont les champions. de dépenses festives. <laughs> waaw malheureusement ñun góor ñi. ñoo leen di jàppale ci loolu. c'est nous qui dépensons nous ah, les hommes pour ñoom pour leur faire plaisir léegi ñoom jigéen moo looloo ànd léegi nag ñoom on leur interdit ça au niveau public Touba doo gis ku sol mèche mais dañuy dem ba seen biir kër yi di sinap quelqu'un qui dans sa chambre kay di sinap yow boo xamul da ngay defee ne moom ci mbedd du ko def ci mbedd sañu ko ñoom ñëppay muuru mais buñ duggee sum dindi li di sinap di la won ne maa ngi Touba maa ngi kii affaire mais nañu xalaat borom bis bi borom bis bi Cheikh Ahmadou Bamba combien de vexations il a vécu combien d'épreuves il a vécu combien d'humiliations il a vécu durant ses 63 ans d'existence lépp pour le bonheur de ses semblables loolu rek moo ko taxoon jóg ak li mu daj yëpp ñu yóbbu ko ay Mayombe ay Libreville ay yenn dëkk yoo xam ne ah day day am problème terewul mais loolu yëpp moom mi ngi doon chercher la carte révélationnelle de son de son créé léegi nag bu ne nee bis bi na ngeen ma santale moom loolu la woote uh-huh. na ngeen ma santale sama bis bi uh-huh. léegi nag soxna si booy santale nit ki koy danga koy santale ci li mu gën a bëgg uh-huh. ci bu sell la piété les bonnes actions et ak in zikrullahi mm-hmm. yooyu la soxla mm-hmm. mais malheureusement ñun dañoo jël événement bi ñu ci bari ci ñun dañ koo galvaudé mm-hmm. jox ko beneen sens mu doon day dem ba mu nuru sax yenn saa yi compétition la. mais la sax de. day dem ba nuru yenn c'est certain ku nekk di wane ne. amul sëñ bi soxlawul loo xam nga sëñ bi lu mu soxla ñu jaamule ko yàlla. parce que moom bakkan bi dafa jàpp nit ki warul am temps def ci leneen lu dul jaamu yàlla. mais malheureusement te xam nga nag ñaan bu nangoo de sonal borom. Ah. Sëñ Tuubaa ñaan moon nangu. et puis du boo déggee booy booy sax <laughs> booy rapport sax la Bamba forever Bamba pour toujours. Uh-huh. waaw donc ça veut dire que ñaan moo nangu léegi nag uh-huh. on ne peut pas avoir une un un monde où toutes les composantes ont le même niveau de développement intellectuel. Uh-huh. ont le même niveau de développement économique. ont le même niveau de développement social et moral. léegi nag yooyu da koy gérer yow l'essentiel yaa ngi gérer le micro la macro. Mhm. éco la macro monde quoi. Mhm. la macro du monde. Mhm. léegi nag li ci des moom. c'est des faits ak et avec les réseaux sociaux. mënoo ci dara. ku nekk néegam di synap. sol di di di sumee ko ko sol di di di ko dugal ci esthétique loo ko mën a. waaw loolu c'est vrai que Aïcha juste pour affirmer li nga wax. parce que bien avant màggal bi di jot on avait euh, da ngay boo visiter li nga xam te ne mooy TikTok yi da ngay gis euh, yenn jaaykat yi nga xam ne jaaykatu greffage lañ. Mhm. dañuy naan promotion màggal. Mhm. en fait je me suis dit mais dëkk boo xamante ne nee nañ carrément que ça c'est banni ay pantalon doo ko fa sol. ay xeesal lii doo mais tu des nationale dem ñu wàcc sur le terrain pour def reportage boobu noonu mais on n'a pas eu d'interlocuteur mm-hmm. et pourtant ci ñoom ñoo nga xamante ñoom ñoo def ci TikTok ne promotion la mm-hmm. boo demee fekk leen ñee bërëb bi dafa sell mm-hmm. sañu ñu ko fa def tu vois comme les gens sont fausses tu vois déjà gars yi mënuluñu leen dara mais il faut ñu sensibiliser leen da gis jigéen juy dem màggal yóbbu valise valise valise su pour ñaari fan xaw ma ñetti fan. def fa valise valise su yére di simika teg simika teg ñiy jël ay 10 carats di ko sol. Mm-hmm. ci dëkk boo xamante ne nee nañ carrément situation bi dëkk bi dafa métti. Mm-hmm. ah am na ñoo xamante ne dëkk boobu noonu ñu nekk sa am na ñoo xamante ne seen trois repas c'est pas assuré par jour à Touba dañ il faut oser le dire mm-hmm. nga xamante ne amuñu trois repas par jour mm-hmm. ñi fay a si di fa sol ay mm-hmm. ah këru sëriñ dañuy dem dugg ci biir te nag ñuy def noonu mooy ñi nga xamante ne ce sont des ci kër yu ñuy dal tour ñooñu ñoon dañu am ay tour ah, ay doomu lii seen seen ay gan ñëw di def n'importe quoi mais loolu noonu dafa nekk loo xamante ne tamit même si dafa nekk ay intérêt yoo xam dañ ko def sur la place publique. Mhm. ñu tere ko ci biir ñu xool yan kii la ñuy teg quand même. nekk na loo xamante ne c'est difficile nit ki nekk këram. Mhm. tëj ay buntam. <laughs> doo doo doo fa ñëw di ko wax. amoo gan yi pourtant waaye amoon na itam dama doon ni Baye Fall yi dañ daan maanaam boo defee rassa xaw ma je sais pas ñu dagg ko. non dañ ko loolu ci mbedd bi. ci mbedd bi dañu non ba léegi loolu. Adja Adja ba mi ngi am mais ci mbedd mi la. Mhm. nit ku tëj buntu këram nekk troisième étage wala kii di woo ay ganam. Mhm. ñu tëj seen appartement. donc oh, mun mun doo fa dugg nag wax dëgg yàlla. intimité lu ñu xal di yaa lor. moi me dis que mais mbedd mi doo tase ku mais mais mais nit ñi seen kër ñi ngi def lu leen doyen je me dis hmm. que loolu dafa war a mën a nekk yar individuel nit ku nekk xam la la war a yóbbu. waaw léegi nag. Hmm. xam nga tamit nit ki tamit boo xamul sëñ Tuubaa. waaw xamoo la suñ Tuubaa woote man man sam dem sam dem Tuubaa damay xaw a yéem xam nga xam nga am na ñoo xam ne xamuñu sax le sens du du màggal au fait xamuñu sax le sens du màggal léegi le fait tamit en fait c'est c'est sujet boo xam ne bu ci doon waxtaanee fii ba suba c'est sûr que duñ fi jógee parce que ku ci nekk ak sa appréciation mais moi je dis yaru individuel la nit ku nekk yaa war a mën a xam exactement yow doomu jullit nga jullit nga am na yoo xam ne war a ko comporté woo dëkk bu sell mel ni Touba ku nekk dafa am lu yëkkati mhm. am na ñoo xam ne wax dëgg yàlla dañuy dem pour màggal màggal ko jox bis bi. Hmm. tolluwaayam. Hmm. jaamu yàlla rek lañ ci def. am na ñeneen aussi dañuy dem non pas pour kii mais loolu dañuy nekk foofu ci yeneen yeneen. Hmm. donc ça veut dire que loolu mooy problème. mais l' essentiel sëñ Touba daal. nee na mon talibé est celui qui accepte de suivre les préceptes de l'islam et de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nekk ci loolu. yaa ngi ci li neex seen Tuubaa boo ci nekkul bisu bu ramu nag. Mhm. bul xalaat mu mu jës mhm. alors doyen peut-être peut-être deux minutes rek ah moom moo ñu moom moo ñu des si si actualité bi. Ah. mais wax peut-être ci euh, titre bi nga xam ne nii euh, gis nañ ko euh, ci Walf Quotidien ñu ne Sonko toujours dans la peau d'un opposant pendant ce temps Alioune Tine moom. mu ngi joxoñ ne Ousmane Sonko comme étant le seul et l'unique qui gouverne. waaw xam nga je cite ses comment il peut dire que c'est Sonko gagné. waaw léegi. Sonko qui gouverne que Sonko son sa place sa sa place. il est cadré na nee na en plus euh, Alioune Tine nee na en plus Ousmane Sonko il devrait euh, être à la présidence que primature parce que présidence dañu fa wala ñu gën a mën a mhm. séntu. loolu bi day naax léegi dafa commencé naax. Mhm. kan Alioune Mm. ah dama ah, xam ne. il pouvait dire ça depuis longtemps. comme que moom xalaatoon na ne waa présidence moo ko arrange nekk directeur de cabinet. Mm. pourquoi il ne l'a pas dit depuis longtemps. il pouvait dire ça maintenant revenons à Walfadjri. Mm-hmm. Walfadjri ñoom nee Sonko ba léegi il a des problèmes pour se départir. Mm-hmm. de son manteau d'opposant en tout cas sur certains points. loolu niru na ko. parce que. entre le l'ancien opposant qui est, qui est maintenant au pouvoir mhm. et le manteau de PM mhm. dédoublement boobu Ousmane premier Sonko réussir ko bale mhm. ah. parce que chaque fois il est dans la menace serrer lay conjuguer le verbe serrer mettre la pression desserrer relâcher quand il de la résistance avec les marchands ambulants menacer jouer à se faire peur ñetti verbe yooyu lay mhm. conjugué parce que boo interrogé depuis trois mois yi première sortie yoom lan la mooy bi mu demee grand théâtre mhm. opposition buy nelaw mhm. nga mbéj ko mbéj boo xam ne dans l'histoire mës sa am nga am ndam loo xam ne kenn mosu koo am ci réew mi opposition bi du nelaw amul lenn lu muy def lu dul yeeleen man kuy nelaw du ma la yee dama lay bàyyi nga kon na say nelaw ñaanal la jàmm yàlla boo fa jaar dem feneen loolu laa lay ñaanal <laughs> nga kon na nelaw mu attaque opposition bi attaqué magistrat mais, mais doyen Sonko tamit il est dans son style hein. Sonko il est dans son style loolu lañ ko xamee le le pouvoir le statut a évolué. non soxna il n'est plus dans la même position. Mm-hmm. oui. il était opposant maintenant il est au pouvoir. oui ça c'est l'opposant le dire. wax yaa ko moom. Mhm. le pouvoir c'est le faire. Mhm. jëf la am. Mhm. nay jëf mais boo bëggee nag ku nekk nga lijjanti ko attaquer opposition bi attaquer magistrat yi foofu sax man jusqu'à présent je me demande pourquoi l'UMS a été très silencieuse par rapport à ces attaques de Ousmane Sonko parce que ñoom d'habitude ils sont tellement prompts à pontre un communiqué pour riposter mais dañoo sëgg jënd glace. li xale yi di wax yéen ñoom ay saa léegi beneen affaire bi mooy la presse menacé ko mais heureusement la presse taxaw na taxaw bi xamal na ko mbir mi du demee noonu waa riposte na <laughs> léegi riposte mais loolu am beneen bi aussi mu ñëw ci marchand ambulant yi bi mu leen dajale xamal leen ne réew mi am na loo xam ne déguerpissement bi yóbbu ko pour man mi ko président Diomaye laajee daf ne ko man yëguma koon je vais me référer au ministre de te pourtant c'est ce même ministre de l'intérieur qui a fait une circulaire le 7 mai 2024 mm-hmm. nan loolu nan la mën a nekk donc sa veut dire que bu dee loolu am na sa devient grave très grave parce que am réew aussi dafay am ordre am nu ñu koy def mm-hmm. te décision bu bëri dañ ça se discute au niveau du conseil des ministres donc ça veut dire cela pose problème mu ñëwaat encore fan yi encore attaqué waat opposition bi ay taxé leen de tapet ay yu kenn xamul donc ça veut dire que moom xaaruñu ko ci posture boobu hmm. fi ñu koy xaar mooy mu élevé au niveau du débat et puis mu def distinguo bi di dichotomie réelle hmm. entre sa posture de PM ak sa posture de de de président de Pastef léegi su réussir ça rek dina ma mais malheureusement jusqu'à présent dafa mel ni opposant bi mooy wax boo gisee Ousmane Sonko bu 2023 ak 2024 amul benn changement ni mu doon waxee lay waxee ni mu mhm. doon defee te wax dëgg yàlla mhm. su la yàlla dimbalee ba nga <laughs> ilif ay 18 million de Sénégalais bokkul ak ay militants. kilifa nga kilifa nga léegi kilifa nga am nga no no no doyen wax c'est tellement soo xoolee kii nga xam ne mooy euh, Macky Sall wala Ablaye Wade ce sont justement ces postures là. moo leen moo leen gën moo leen moo leen gën a perte loo. waaw parce que finalement les Sénégalais ne comprennent plus mais kan la ñuy waxal président bi la wala politicien bi la. donc des fois il faut que nga am benn. posture benn stature bi nga xam ne da ngay mën a élever le débat pour nit ñi fekk si la mënoo nag xeex ak gars yi euh, nit ñuy wax nawetaan nawetaan nawetaan ba nga dem Ligue des <laughs> ba pare ñëwaat di nawetaan ak gars yi <laughs> mënul nekk ah oui buñ la buñ la fa pàddee yow la ah. euh. alors ah, est-ce que tamit du du du du ki ni ñu koy waxatee sama waa ji le président moom mooy doxal jomaay euh, mooy doxal moom mooy riposte am na benn défaut boo xam ne Wade amoon na ko oui doyen on termine si on li en crée pas moom c'est lui qui en crée. Mhm. front yi jaru ko tu disperses ses dem ba mujj tu tu mhm. tu crées des frustrations. de de part et d'autre. alors loolu baaxul ci yow. en tout cas doyen ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax c'est l'actualité de ce matin. Euh, euh, dëgg yàlla round-up de l'actualité de cette euh, de ce week-end lu baax a baax on se donne rendez-vous demain mais vous restez avec nous accompagner Mélanie Aminata Samb bu léegi leen di ñëw ci rubrique le panier de la ménagère